poste yu am solo ci nguur gi noonu la ko yéen gi wala fu ko tëjee xëy fi sa gi ne président Macky Sall ne dafa bëgg gi ne président Macky Sall gi moo xëy fesal lu ni mel yéen gi ne président Macky képp koo xam ab préfet nga woon wala ab préfet te ñu njort ne kon da nga xaw a ak kii di Aliou Ngouille Ndiaye président Macky gi xëy fësale yéene ci manifeste nga xam ne wàlla ko sooti nañ ko manifeste gi nag ñu ko jàpp ni ki fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru novembre lañ ci jub rek mooy ñaawlu ni président Macky yore réew mi noonu la ko yéene gi source ak xëy fësale yéene geneen di yor yor ne ab plateforme panafricaine de l'opposition lenn ci opposant yoo xam ñoo nekk fii ci Afrique ñu ngi woon nag fii ci Sénégal jot nañ fi amal ay tànki nemmeeku yëkkati nañ ay kàddu nag di wax ne seen yéen ak seen bëgg-bëgg mooy fexe ba élection 2024 yi Ousmane Sonko mën cee bokk noonu la ko yéene gi di 24 diggante jàpp waaye la loolu nag buñ sukkandikoo ci waa SAES e mën naa xajaban loolu njàng mi noonu la ko yéene kaay di 24 heures séddale yi. donc yéen a kaay yéen a kaay gi l'évidence dafa xëy samp bëgg xam ndax njàng mu kawe mi buñ deful ndànk ci année blanche lañ jëm noonu la ko yéen a kaay gi xëy fësale ndax ndaje mi doxoon ci diggante waa SAES di syndicat gi ëmb jàngalekat yi nekkee ci daara yu kawe yi ak Moussa Balde mi jëwriñ daanaka dara tukkewu ca ndax dañ doon xaar ci moom jëwriñ ji mu wax waaye benn cadre la fa nekkee woon il faut lever euh, mhm. le mot d'ordre de grève noonu daal la fa nekkee woon loolu loo xam ne nii lu métti la waa SAES ba tax njëkkat ci ay kàddu yéen kaay gi nag xëy dellu si tamit ci juuna gi nga xam ne meeko nañ ko ci diggante ànd gësam ak Marie Khemesse Ngom mi jëwriñ ji dénk wàllu santé euh, critique lam ñu jukkil Abdoulaye critique dafa xëyee amal ab critique gu yaatu jomale ko euh, ci doomu aadama yi nga xam ne ñu ngi mbëkk gaal yi di ñàkk seen bakkan ci géej gi yéen kaay gi ne ndax état bi la ci wàllu politique bi nga xam am nañ ko wàllu ndaw ak it tâtonnement ak rafistolage gi ñu nekkee kaay gi ne li ko gën a métti rek mooy si jamono ji opposition bi ak pouvoir bi ñoom euh, ña daal euh, taaluñu leen kenn ku ci yaa ngi jéem a xool nooy noonu la ko yéen gi di euh, critique xëyee fësale eh, turbine lam ñu xam def ba jéem a freiné li nga xam ne nii moom moo di stratégie eh, mooy tragédie bi noonu la ko yéen kaay gi xëyee fësale euh, naka la ñu def daal ba fexe euh, ba mbëkk mi daal ñu jéem a naka lañ ko fay téye yéen gi doon xool dellu siwaat yi nga xam ne xalif général des mourides bi sëñ daal di wax ci mbiru Baye Fall boobu nga xam ñàkk bakkanam fële ci saakoon daal ci taaliba murid yi saakoon daal ci ñi Baay Faal ñu daal ah, te xam ne mbir mi dana ko lijjantil boppam nan la ko yéene kaay kii di la tribune xëy gi xëy dellu si ci président Macky mi nga xam ne ni euh, ma nga fële ca France ngir fekkee fa forum bi ñu fa bi ñu fay amal jagleel ko wàllu jàmm noonu la ko yéene kaay gii di la mandat Le Soleil. yéen kaay gi di Le Soleil ne président Macky Sall bu jógee fële ca Paris ma ngay utali fële ci Riyad. Euh, Sud Quotidien. yéen gi Sud Quotidien dafa xëyee amoon ab taaxu seetlu yaatu jëmale ko ci lenn ci ay barab yoo xam daanaka ay mille te gars yi di ko exploité. Mm-hmm. yéen kaay gi ne bu ñu sukkandikoo ci bànqaas di bànqaasu ci jëwriñ yi découvert environnement ci nguur gi nee daal mine yooyu lee daanaka ay jafe-jafe la ñuy jural la ñuy indil. Euh, wala ay musiba la ñuy jural suñu ndëkk wër yi noonu la ko yéen a kaay giir Sud Quotidien xëy fësal euh, stade moom lañ ñu jukkil wax ci liste Aliou bi nga xam ñu ngi koy xaar ni ki tey ji ci match yi nga xawoon naa dox ci diggante Soudan ak Sénégal ci diggante aussi Togo ak Sénégal Aliou Cissé nag nee nañu boo moytu du am coppite yu bees ñoom ah. mhm. mu doon liggéeyal ñoom lay fas yéene indiwaat noonu la ko yéen kaay gi stade xëy fësalee. Euh, suñu lamb lu mu fësal. wax ci combat gi war a dox ci seen ay kàddu daal di xam ne ni moom amul dara lu muy ragal ci Tapha Tine. Mhm. te nekkul di calculer dara. lu wértu daal mooy bu arbitre doxal seen diggante xaalis dana woon euh, euh, Tapha Tine mhm. la mu mëne noonu la ko yéen kaay gi suñu lamb xëy fësale Abdoulaye. ma ngoog njool ak ndaama ah, ñoom ñaara fas yéene bëre. mais combat la nag. combat la de. Mm.